tabaski ba léegi dama feebar dama feebar xaw sonn tax des fois damay yow gis appel yu baraama yaa di gér gi may segewel ling ma may xajul ci bato noppi daal warul ma ci baay maa ngi jooru baraama bu fekkee ni saa dund des na tey ak nu mën a ko way ba dee sama dëj bàkk leen ko baraama ñi wayantu lan lañu am ay mayantu rek lañu am te nanguloon na ko. ci affaire daayira. ci daayira. doon yëngatu. nee na ci la doon yëngatu. laa ilaha illallah. nee baatu laa ilaha illallah. kese. nee na moom rek la doon yëkkati moom la doon wax. ci Ibrahima Ndaw bii. nee na Ibrahima Ndaw mii. moo ko jox yoon. nee na moom moo ko mooy wasilaam. moo tax ma bëgg suñu demee armeel demee ca armeel ya. suñu joxee ñaan. bu nu joxee ñaan. moom itam mu joxe ñaan. nee moom na ko ñaanal. ndax. ndax. genn wàllam la. genn wàllam la. daf ko daan waxtaanee. daf ko daan waxtaanee fu mu toll. waaw ah, loolu yaakaar nee na loolu yaakaar la. yàlla bu yàlla tas yaakaar ah, yàlla bu baax imaam ne ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi wax ni inna lillahi ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ñu ñaan yàlla mu yool ñu musiba ñaan yàlla mu yool. mu yool ñu bi lu leneen lu gën. yàlla am na ko. yàlla am na ko. yàlla nañu ko yàlla defal yàlla nañu ko yàlla defal. dañuy wax ne ummu salamata. dañuy wax ne ummu salamata. keroog ba nga xamee ne jëkkëram génn na. keroog bi nga xamee ne jëkkëram génn na àddina. yonent na ko waxal baat yi. yàlla dana la wuutalal lu gën. nee na bi wax ko waxal baat yi. yàlla dana la wuutalal lu gën. daf ne dama koy wax rek. mu ne dama koy wax rek. waaye ku gën sama jëkkër ji. waaye ku gën sama borom kër gii. mënuma ko amaat mënatuma ko amaat. ba tenjam pare. ba tenjam pare. yonent dem takk ko. nee na yonent bi takk ko. yonent ne ko nakam. yonent bi ni ko nakamu. li la yàlla wëttal ak li ñàkk lu ci gën. li la yàlla wuutal ak li nga ñàkk lu ci gën. mu ne ko yow doo kenn. yow mu ne ko yow doo kenn yow sallallahu alayhi wa sallam. kon nag ñu ngi wax loolu. kon nag ñu ngi wax loolu. ñaan ñu. di ñaan yàlla wuutalal ñu li gën. di wax ne xale bii. di wax ne xale bii. mën nañoo wax ne jullit xaqan. mënoon mën nañu wax ne jullit xaqan la. ci lu amul benn werante. ci lu am amul benn sikki sàkk benn werante. seede nañ ne mokkal na alquran. seede nañ ni mokkal na alquran. seede nañ njàngam. seede nañu njàngam. waaye ñun seede nañ njubam. waaye njubam. seede nañ topp yàllaam seede nañu topp yàllaam. seede nañ bëgg yàllaam. seede nañu ba bëgg yàllaam. ndax ni ko ñëpp waxee. ndax ni ko ñëpp waxee. mu ngi woon ci suñu ron. mi ngi woon ci suñu ron. te dara taxutoon. te dara taxuloon. lu dul yaakaar yàlla. lu dul yaakaar yàlla. ak ab yonentam. ak yonentam. sallallahu alayhi wa sallam. kon kii. kon kii. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. danañu wéetal. danañu wéetal. waaye liñ ko yaakaaral bëri na. waaye liñ ko yaakaar bëri na. ñu ngi gërëm kilifaam bu baax. ñu ngi gërëm kilifaam bu baax. sëñ Ousmane Sow. sëñ Ousmane Sow. di magam di nuyu magam. Cheikh Moustapha Sow Cheikh Moustapha Sow. di leen jaajëfal di leen jaajëfal. ci lii nga xam ci lii nga xamante ni. doxalee nañ ko nii doxalee nañ ko nii. loolu ci nangu dogal yàlla nee na loolu lii ci nangu dogal yàlla la bokk. xam ne xale bi xam ne xale bi. fa mu demoon fa mu demoon. du nit la fa wuti. du nit la fa wuti. waaye yàlla la fa wuti waaye yàlla rek la fa doon wuti. mu dem ci buntu Cheikh Ibrahima. mu dem ci buntu maam Cheikh Ibrahima. seet ñam fa yaakaar. seet ñam fa yaakaar. ànd ak ñoom ca loola ànd ak ñoom ca loola. boobu àndoo yàlla nee na boobu àndoo yàlla la. loolu nee na loolu. su ngeen ko nangoo su ngeen ko nangoo. gërëm ko gërëm ko. ba lii xew ba lii xew. ngeen doxalee ngeen doxalee ko nii. ngeen di wax ne ñoo ngi leen ñoo ngi leen di wax ni yàlla na yàlla fay leen. ñu ngi leen di wax jazaakumullahu xayran. gërëm nañ leen yéen gërëm nañu leen yéen famille bi yëpp. di wax ne nag di wax ne nag. Euh, sëti Cheikh Ibrahim. sëti Cheikh Cheikh Ibrahim mi ngi fi. muy maam Alhaji Muntaka. muy maam Alhaji Muntaka. Ñas Ñas. nga xam ne jàngkatu alquran. nga xam ne jàngkatu alquran la. borom xam-xam la borom xam-xam xam-xam la. doy na ci ne borom xam-xam la doy na ci ne la. firikati la. ku duwut borom xam-xam doo ko firi. wala boobu da ngay wax lu neex. wala da la neex. firéem waaye moom firéem. ñëpp déglu nañ ko ñëpp déglu nañ ko. ñëpp rafetlu nañ ko ñëpp rafetlu nañ ko. waaye it nag borom njub la. waaye it nag borom njub la. waaye it borom yërmande la. waaye it nag borom yërma borom yërmande la. te ñun ñëpp xam nañ Maulana Cheikh Ibrahim. te ñun ñëpp xam nañu Maulana Cheikh Ibrahim. bu doom sëtam melee noonu. nee noonu. doon soppee ki génn àddina doon soppee ki génn àddina. su ñëwee. su ñëwee teew fi. kon ñun ñëpp. kon ñun ñëpp. ñu ngi ci mbuusam ñu ngi ci mbuusam. mooy suñu wasiila mooy suñu wasiila. ma ñaan leen may itam moom it mu ñaan leen moom tamit. ndax li ngeen bëggal astu. ndax li ngeen bëggal astu. lu ko raw laa ko lu ko raw laa ko bëggal. yaakaar gi ngeen am ci. yaakaar gi am ci moom. gu ko raw laa am gu ko raw laa am ci jëmm ji. loolu rek moo tax nee na loolu rek a tax. waaye su du wutoon loolu waaye su du konte loolu. xalaatu ko ci loxo xalaatu ko teg ci loxo yi kenn waaye li ngeen yaakaar ci moom lu ko raw la yaakaar ci moom di mii di sëriñam moom it mu ñaan leen mu taxaw jullee ko ñu ñaan yàlla comme ñun ñëpp dañuy ñaan pour ñaanal ko yàlla yërëm ko yàlla xare ko aljanna bismillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar